gis nañu aussi fan yii passé yàggul dara audio yi nga xam ne que fuité na muy ñaaxarañ loo. Mhm. ak Awa Baba Thiam. waaw aussi waaw ñaaxarañ loo moom dafa juum. Hmm. ndax jàpp naa ne ñoom war nañ dépassé lu lu mel noonu ndax man ñaa fooguma ko woon genre yi def yooyu. Ah, bett parce que man ñaa li xam ne moom mooy kuur na ñëw na si napp dem yoonam. Hmm. bu ma demee ba toog dégg audio yi waaye nag mu tax ma am ci mbetteel mooy dama ko woo avant audio may dégg audio. Hmm. ne ko ñaar may dégg benn coow ñu ci dégg sa tur ñaare du man bokkuma ci man sanduma càmm am na ñu ma woo man leen sama yónnee ko ci abaaw càmm ma mm-hmm. defee ne loolu la ma toog ci gannaaw suba nga ñu yónnee ma audio bi mm-hmm. kon la ma ñaa wax ak li am ci audio bi wutee voilà donc te nañ nañuy nañuy suuraale xam ne enregistrement yi waaw nañu su non pas enregistrement enregistrement boo ko defee nit ki bu loo ci yoon da da ngay daal mm-hmm. dañuy tere loolu kenn du waxat nit di ko enregistré te amoo amoo ah, waaw donc gaa yi ñu ngi koy def te xamuñu yan moo lañ ci mën a mën a fekk bëri na ñu koy def man soo soo gisee nii sama téléphone mën naa laa jox nga xool doo ko mos a gis sa àdduna ndax xaw ma sax ni ñu koy defee arrêté nekk pour lan ah kooku bu la yóbbuwoon ci yoon rek ah audio jàmbur sax amoo droit partage ak keneen. ay nekkul si yoon ba na ko wala. non xaj ñu ngi ci yoon peut-être man xam nga loolu xaw ma ci dara. mais loolu daa na ak yenn bokk laa xam nga tey jii boo jegee boo fekkee ne waali moo la def ni nga mel. Mhm. xaj bu am ci kër gi sax. da nga ko war a téye. Mhm. te xam ne borom xaj bii moo la def ni nga mel rawatina ay nitu rawatina koo xam ne dafa dem ba nekk goro waale far fos xam la mënoo ko dindi mm-hmm. ndax rakk waale moo takk doom ah kon boo yëkkati ay ñaawteef ko jëmale ci moom ndax war nga def ni nga mel aw nag dafa weex donc lu ah, ba ay ay ay otoot ah. otoot leb na otoot locolocation xam nga tey jii Sénégal il faut ñu xam ne ñun du ay bàyyi ma ay xel la am ay nit njaay lañu oto kenn du ko loué sans contrat ba pare xaalis bi teguwul contrat kenn du ko bindal te joxe woo xaalis. Mm-hmm. lu toll ne Sénégal tour nag laa la wax te et sax borom oto boobu euh, ki moom oto bi carrément xaaral ma dugal ko fii ngeen xam ne mm-hmm. awa yoree lu ko dërëm moom borom oto bi moo ma woo ne ma oto bi kenn yoree lu ma ci xaalis. pour yàq aw waaw xam nga noonu daa yàgg am te da faatu sax noonu di la topp ci bàmmeel kon xam nga ne noonu dafa am lépp loo gis rek ay noon moo koy moo koy waral quoi. ah, ah. moom laa woo kii moom oto bi carrément di fàllu keroog bi mu seetaanee interview bi ma def maa woo ma coow li waa ji di wax waa ji day fen xam naa téléphone am dafa kii ah. boo ko looy nit te fekk mu am contrat ngeen wax ñaata jour la nga jox ko xaalis mu signé le contrat nga dem ba jour yooyu jeexee te indi woo oto am na droit moom ci boppam fay oto bi parce que fii gisuma Dakar fii ku fii looy oto na droit fay bi ci GPS bi te it am na droit di contrôler oto fan la fan la nekk ba dem jëli ko kon mënuma comprendre ni ki léegi seeree noonu plus de un million trois cent te un million neuf cent moo nekk ci contrat bi hmm. ba pare defaloo ko defaloo ko defal ko facture léegi contrat bi jeex muy renouveler oto bi dem lu tolloo dix jours loolu fan la am te joxu la dara. Hmm. mënut a nekk. mais lan la loolu ko seetloo euh, buñ koy yàq buñ koy buñ koy xeex ci ay bor rek lañ koy toppee moom de xam naa kon <laughs> Sénégal dafa neex de. buñ la giñul lees benn giñul ñuy la càgg dañ naan la ameel nga diw kër ga nga dëkk fayoo ko. dañ la koy fayoo rek nangam yooyu rek lañ la yàqee. wala wala woy bi la woy bu ko waale waale woy tuuti. loolu tamit euh, xam nga tey jii ni ko Wally def na am na xam ne du leen neex te xamuñ ne yàlla mooy boole ay nit. Hmm. donc nit ku baax la man euh, ba pare doomam ma ngi seet Wally doo doomam ma hmm. donc Aline waaw Aline mooy Wally hmm. donc su demee ba sëy am foofu kon ñun ñi nga xam ne ay nit Wally lañ war nañ jomm yenn yi. di jóge ci ñun di dem ci nit Wally yi waa non ñaa juum na moom. waaw moom laay waxee di dem ci nitu waale parce que tey jii lu ñu wax rek dañ naan waale la tey waa kër Awa sax mën nañ jàpp ne yii kon waale da ko yëg dëkk ci tànkam wala naa ko mën naa fekk waale yëgul ci mi ngi noonu. léegi nag bu demee ba fii audio amul wala dara amul wala ñu gis dara ci internet wan ko ko moom waale du yëg mm-hmm. donc dañuy dañuy dañuy maytandiku yooyu ndax xal alalu àdduna bu mu jar di yàq doomu aadama ndax wax ji ñaaw na quoi gars yi autopolice koy jëlee mel ne dafa ray nit wala crime wala nangam bor bu ci autopolice di jëli jëli nit. Ah? fan la aw dafa am doole boo xam ne dañ koy porter plainte te wuyu ji te du wuyu ji ah. mais gis nañ ne aw heure bu amee problème dañ man man man man jëmmi waale moo tax ba may def. ndax lu ci mën a xew def naan ci waale la donc dinaa ko protéger protéger waale waale hmm. bañ xam ne waale yëgul tinul yoonam nekk ci. donc euh, mënuma mënuma ko bañ a bañ a bañ a man du du du moom kese képp koo xam ne gis naa ni ngay taxawoo Wally di ko jàppale ma mm-hmm. xam ne yow mii am nga ambition ci Wally te yaa ngi koy jàppale te yàlla rek tax boo amee jafe-jafe ci internet bi ni nga ma gis mm-hmm. loolu moom amul ma dem tamit du moom kese képp koo xam ne yaa ngi jàppale Wally te yàlla tax di ko taxaw ndax ku taxawu Wally jàppale Wally ñun nga ko defal mm-hmm. donc kon du ma seetaan kooku di am jafe-jafe loolu rek la. mais j'espère problème bi rek réglé nañ ko ndax ñoom ñaar réglé nañ problème bi nangam ak nangam loolu wóoru ma. si ñaar. non non non amaatuma retour bëggoon bu ñëwee mu ñëw soldaalam dem kër xam nga ñu toog waxtaan. ah kon dafa voyagé sax. waaw dafa demoon états parce que yenn yi ko fi quoi. Ah, parce que te lépp lu ci nit waale nañ koy xool daal dañuy yeneen te jàmm. ci côté waale sax coono yi bëri woon na waale day bay waale du bay lan ngay wax fan si. non Wally bàyyiwul ñoom xam nañ ko parce que déjà ñun dañ doon waajal benn marche parce que après ci lañ yëgee ne ñun dañuy def benn marche ci la Wally gaaw enchaîné génne benn affiche. waaw première dame namit soxna ay recevoir na ma. wax ne marche bi du am donc dinaa ci gën communiqué ak gars yi xamal leen ne marche bi fomm na. parce que marche kan la naroon am sax. le 10 le 10 mars lañ ko def président na bi mu yëgee ñun ñi dañuy marche ca caaxaanoo. dafa bind benn lettre ku ñaan sëñ Saliou ñu mm-hmm. defar affiche le 27 wane ne que dina ñëw jàkkaaroon ay fansam le 27 avril donc mënatuñ def marche bi parce que li taxoon ñuy marche li taxoon ñuy ñaxtu mooy annonce bi nga xam ne génnoon na jëm ci jëm ci moom mm-hmm. mun na xari gaa yu bëri voilà loolu moo waral marche bi les amis de Waly daal loolu la mën a wax les faramaare. waaw non loolu foo wax rek faramaare laa bu mag sax. mais délégué léegi ñu ñëw tuuti un peu sur les réseaux sociaux gis nañ ni Sénégal yàqante bi bari na léegi. waaw enregistrement yi waxante dugal la loo wax seen xuloo wax lan la lu waral loolu bëri bi la wala qu'est-ce wala bon bee bëri. waaw mu jug jamono lañ ne rek ba pare nit ñi moom Sénégal xam nga dañu fee baaxoo nit ñi yor seen laaj rek doon neex la ñu wax. waaye am na ci wax yoo xam ne moom bu génnee ci nit ki ba nit ko nga koy waxal mu am ko bu la yóbbu ci yoon moom da ngay jëm daare hmm. rawatina ngay tudd nit ki di wax ci moom wala ngay def ay injure publique saaga nit ki hmm. wala nga jël ay ay enregistrement ci nit ki wala nga jël ay audio jàmm partagé ko hmm. yooyu yëpp boo demee ci yoon gars yi dañ la foofu parce que loolu moom dañ koy tere fii ci di mi di wax ci nit ki loo xamante ne ni amul loolu mooy di diffamation di tudd turam en même temps wala ngay ngay ngay saaga nit ki. ah mais diffamation léegi moom influenceur yëpp xam na la mooy diffamation soo bii. waaw non c'est normal parce que ku ci ñam ñamaat ko dootoo ko ko defati donc euh, dootoo ko defati. Hmm. diffamation sax en général boo bu ko nit bu la ko nit ci yoon bu fekkee amul saaga amul dara diffamation kese la. Hmm. da ngay dem ñu entendre la nga jël dossier bi yóbbu ko tribunal. tribunal woo la àtte la teg la ay daan maanaam mën nañ la jox sursis six mois comme niñ def Sonko. six mois yi nekk diggante six mois yi boo amee problème boo defaat ci diggante bi ñu tëj la nga tëdd sa six mois ba pare ñëw ñu attewaat la ci li nga def waaw kon yàlla nañ ci yàlla mosal xam naa ne émission bi mooy waay jeex léegi nga bay looy tàggatoo rek ak loo bëggoon wax xam na laaj ma la ko mais sant yàlla lépp lépp lépp lépp jaar na yoon waxtaan bi am na solo mm-hmm. ñu ngi jaajëfal ñëpp di baalu àq ñëpp jërëjëf